grippe bu leen jaaxal daal ñu muy seen yaram di tàng ñuy sëqat donc euh, bi ñu toogee une semaine suivre leen directeur bi au médecin chef district bi donc bi ñu demee médecin chef district bi demandé que ñu ñu def euh, prélevé daal parce que duñ ci perte dara nañ prélevé rek yóbbu bi ñu ko yóbbu foofu ñu xool ko Pasteur ñëw positif léegi bi ñu positifee ñun tout ñu jël suñuy matukaay yëpp maanaam ñu jël leen ñoom envoyé leen centre de traitement Diamniadio après nag ñu confiner tout le personnel ñëpp ñi nga xamoon ne nekkoon nañu contact avec euh, personnel de santé yi même ci seen njaboot ñu confiner leen mettre leen en quarantaine pour jël suñuy matukaay. am na ñoo xam ne ñu ngi leen di xool pour seet ndax amuñ dara am na ñoo xam ne ñu ngi leen di prévu bu Dakar mais li ma leen di wax mooy euh, ñett ñi feebar. seen yaram seen feebar bi taxu leen taxu ko am solo noonu c'est-à-dire rek la leen ñëwee donc sonalu leen mais ñu ngi leen di surveiller di leen faj ba ñu wër ñi nga xam ne ñoo des fii nag ñoom ñëpp dañu leen jël mel leen def leen en quarantaine foofu ci hôpital bi parce que foofu am na ay am na ay am na ay infirmier ak personnel administratif donc ñu ngi xool à chaque fois que am ci dara ñu dem foofu ci hôpital bi prélever leen yóbbu Pasteur pour le moment fofu la ñu yemagum. li bëggoon wax mooy ci feebar bi bi bi saytoo saytu xamuñ ki ñu ki leen wàll set nañ fu nekk mais xamuñ ko mooy euh, contamination d'origine inconnue mais nag teewul ñu ñu bàyyi liggéey bi dañoo continuer seet ña nga xam ne ñëw nañ foofu consulter si ñëw nañ foofu ci diir boo xam ne yaa 14 jours yàggul léegi ñun ñu ngi ci liggéey ci jël registre yi képp koo xam ne voyagé woon nga ci yàggut ci dëkk yi nga xam ne am nañ feebar bi ñu dem seeti leen maanaam am na ñu ciy gis sax ñu ngi ciy liggéey te ñun xalaat xalaat dañ ne te am nañ yaakaar ne dañu gis ki leen wàll pour que ñu mën a jël euh, ñu mën a jël ay solution pour que mën a limiter contamination bi ci biir population bi donc di leen rassurer vraiment mais aussi di boole ci di boole naan ñëpp di wax ñi nga xam ne dañuy jóge ci réew réew yi nga xam ne feebar dafa am. bu ñu ñëwee sepal pas ñuy dem ci hôpital nañu toog seen kër te ñu oo ñu ñun ñëpp man fii ñëpp am nañ sama numéro bu ñu ooyee district am nañu équipe de prélèvement danañ ñëw prélever leen mais c'est pas la peine bu nekkee dem nga am am ñaaw njort lii da nga koo yore ooye boo ñu ootee danañ ñëw boo ooyee cellule d'alerte bu ministère cellule d'alerte bu ministère la santé danañ ñëw bu ñëwee nañ la prélever isole la boo amee euh, malade bi danañ la yóbbu ci fële jam ñaajo wala ñu isolé la fii ci suñuy bërëbu fajukaay yi te doo taxaloog euh, euh, kii population bi mais boo jógee rek bugg a dem ci euh, fi ñuy fajee te yow xamoo dara te duñu laaj quelque fois doo wax ne da nga da nga da nga da nga da nga da nga jóge ci bitim réew aussi dana xaw a jafe donc ñu appel la ñuy lancé kii bi population ñu dëkk Thiès yëpp ñëpp ñoo xam dañuy voyagé vraiment sa numéro téléphone ñëpp yor nañ ko ñëpp yor nañ numéro dal nañ ñu oote actuellement fu nekk ñu ngi fay am équipe di prélevé di yóbbu Dakar donc euh, di dalal xel xelu population yi ña nga xam ne ñoom la dal vraiment ils sont en bon bonne santé parce que en réalité fen feebar dafa frustron maanaam boo gisee rek ñoom luñ foogoon ne xurfaan la ak grippe donc mais bi biñ demee ba xool ñu ne noonu parce que ñun amuñ notion de condom nañu prélever quand même yóbbu loolu aussi ñun ñoo xam ne xarañ xam nañ li ñuy liggéey seen xarañte moo tax ñu trouver ñooñu sinon dañ ko trouver dañ la doon bàyyi rek ñu jaxasoo ak euh, dëkk bi di nar naroon na doy waar mais yàlla def na ñu prélever leen yàlla def aussi ñuy personnel de santé ñu ñu ñu ñu ñu ñu confiner leen ca biir hôpital boobu di leen fa traité ñaa nekkoon contact aussi ñu jëlee leen dugg leen ci biir hôpital ba ak kenn desul ñoom ñoom ñu ngi ci biir def leen par niveau ñi nga xam ne xalaat nañ ñoo gën a contact ñu yóbbu leen suuf ñeneen ñu yóbbu leen yenn leen ci kaw. hôpital Saint-Jean de Dieng nag amoon nañ fi dem ñaale adat ñu dem prélever leen effectivement euh, yóbbu nañ prélèvement yi Dakar di xaalis résultat yi ngoon alors isolé nañ malade donc mais nañ wax nañ liñ bëgg wax rek ci dëkk duñ ak euh, ngoon ku ñu donc euh, vraiment di dalal seen xel di wax ne aussi ñin continuer di des seen kër ñin nañu deful dara des kër vraiment c'est pas la peine ñuy génn génn bi bàyyi rassemblement yi bàyyi rassemblement yi toog seen kër après nag vraiment sàmm seen bopp ñëpp xam nañ léegi di feebar duñ koy moytoo nañ def ñit ñi def не мне, а мне.